ah da ngaa foog ni fu la neex nga saaga fa. man maay sëriñ Cheikh su ma waxee rek bu déwénee dootuma waxati. du naka nag ma yóbbu police yow rek laay xaar. non dama lay yóbbu. nañ dem. non defal ndànk sax bala ñoo dem yow saaga yi ngay saaga fan nga ko teg pour entre nous deux man ak yow pour lan ngay saaga ni ñi ah. lan may dóor léegi. non fi lay fi lay dóor kay dinañ fa dem. man je te pose la question. ñoo ma ne ma saagaleel ma saagaleel. sur internet comme moom moo doon saaga chaque jour nekk ci réseaux sociaux yi di daggalaate ay saaga ndey là je l'ai trouvé à Anne-Marie près de LP elle est là depuis euh, semaine maa ngi oh, soo gis mi ngi nii et may wax muy riposte waroon oh, ngaa jàng daal foofu laa yem waroon jàng ah man de dama ne dem wala danu yow laa dégg na yow yaay sama téeréer si dëkk bi di saagawaate ah soxna si. du police lañ dem. dama ne ndax yow laa dégg waxal fii li doon wax ci internet bi. yow laa dégg waxuma nga wax nag. waxuma yaa wuy ma damay laaj ndax yow laay dégg ngay saaga ci internet bi wala du yow. nit ñëw na la jox ma junne na la saaga ba tey bu loolu yow looy def. lan moo tax ngay nekk ci internet bi di saaga yow yaa moom nit ñi. moom ma kenn. saaga yi pour lan la. dégg nga saaga yow déggoo li ma wax nit la da ngaa foog ni fu la neex nga saagaa fa. man maay Serigne Cheikh su ma waxee rek bu déwénee dootuma waxati. du naka nag ma yóbbu police yow rek laa xaar. non dama lay yóbbu. nañ dem. non defal ndànk sax bala ñoo dem yow saaga yi ngay saaga fan nga ko teg pour entre nous deux man ak yow pour lan ngay saaga nit ñi ah. lan may dóor léegi. non fi lay fi lay dóor kay dinañ fa dem. man je te pose la question. ñoo ma ne ma saagaleel ma saagaleel. sur internet comme moom moo doon saaga chaque jour nekk ci réseaux sociaux yi di daggalaate ay saaga ndey là je l'ai trouvé à Anne-Marie près de LP elle est là depuis euh, une semaine maa koy soo gis mi ngi nii et puis may wax muy riposté waroon oh, ngaa jàng daal foofu laa yem waroon ngaa jàng ah man de dama dañuy dem wala dem yow laa dégg ne yow yaay sama téeréer si dëkk bi di saagawaate maa soxna si. du police lañ dem. dama ndax yow laa dégg waxal fii li nga doon wax ci internet bi. yow laa dégg di nga wax nag. waxuma yaa wuy damay laaj ndax yow laay dégg ngay saaga ci internet bi wala du yow. nit ñëw na la jox ma la saaga ba tey bu moo tax ngay nekk ci internet bi di saaga yow yaa moom nit ñi. moom ma kenn. saaga yi pour lan la. dégg ma saaga yow déggoo li ma wax la